asalaamaaleykum mbokk internet yu DKR 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo ba pare ku ci nekk fa nga nekk ñu la fay fekk naan la jàpp loxo ji la jox sa wàccuwaay di am mbégte di ànd ak yéen ci DKR 221 ci ay information yu euh, mucc ayib ci loolee nag la daal di dikk euh, ci génnuk àdduna ki nga xam ne moom la ñu gën a xam euh, ci Aziz Dabala waaye ci turam dëgg muy tudd. Euh, Abdou Aziz Ba ginnaaw faatoom ak ki nga xam ne moom moo di xale ba mu hébergé woon ci biir këram doon wuyoo ci turu Waly moom tam Waly euh, di turam dëgg euh, Boubacar Ganou ñaari koor yooyee nag ñu fàttali leen ne ñu ngi ko découvrir ginnaaw guddik talaata jàpp àllarba ci lañu découvrir ñaari néew yooyee ci ab appartement fële ca Pikine Technopole boo rombee tuuti fi nga xam ne nii nag moom la ñuy wax Odeca bu Pikine ba fay tolloog fa xale yi di fawee fala la appartement boobu nekkoon te ki ko moomoon du kenn ku dul Aziz Dabala mi nga xam ne moom moo fa luwe woon daal di fay nag dëkk ki nga xam ne moom moo di Waali waaye tam ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ginnaaw faatoom googee lu bari bari bari bari jur na ko ci ay njàmbat yu askanu Sénégal becci ndax nag deegu jaaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi la déegu leen ëlëm waaye itam li ko waral moom mooy dañu jël seeni ay bakkan ñu ngi leen fa fekk ci appartement bi daal di leen faat faat googee nag euh, ñu tax ba ñu xam ci information ni euh, ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ak Wally yëpp ay euh, paaka lañ leen dëbb ba faatu ñoom ñaar ñëpp ci seeni ay biir la rawatina sax ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala mi nga xam ne dañu ko nag jam juróom benn ci ay jam-jam waaye tam ki nga xam ne moom moo di waali dañ koo jam ca biir ba ba daanaka butit ya di sotteeku mu di nag faat yu jéggi dayoo yoo xam ne nii daanaka askanu Sénégal mënuñu ko dékku te it mëne suñu ko nangu benn yoon nekkul it lu ñu toléré benn yoon ndax insécurité bi nga xam ne mi ngi daw euh, ci biir Sénégal euh, waaye itam lu ni mel jur coow bu baax a baax ci biir euh, Sénégal ndax askan wi ñu bari ca ñoom ñu ngi rek génne li nga xam ne moom mooy ay information yoo xam ne daanaka benn bi moom moo tax ñu ñëw fii di ko weddi ndax bokk na ci ki nga xam ne nii nag moom moo di rek Nabou Leye mi ñu ne dañu ko euh, mettre un garde à vue euh, ci jamono ji ñu wax ak yéen euh, Nabou Leye moomee kenn mettre ko en garde à vue maanaam jàpp ñu ko jàpp néggandiku benn yoon liñ ci mën a joxe ci information bokk na ci moom Nabou Leye mi nga xam ne moom la information boobu soxal nekk na koo xam ne déglu nañ ko ñaari yoon ci dossier faatuk Aziz Dabala bii déglu nañ ko ci ñaari yoon moom Nabou Leye ndax euh, guddik talaata euh, bi nga xamee ni euh, ci lañu ñu découvrir boobule yooyu le néew ca guddik ci bëccëgu àllarba gi daal nañ ko ci déglu moom Nabou Leye déglu nañ ko ci waaye bañ ko ci dégloo taxul benn yoon ñu arrêté ko wala ñu teeko ko tegu teewub néggandiku dañu ko bàyyiwaat mu ñibbi këram ginnaaw gi tey jii ci aljuma ji ci bëccëg gi daal nañ koy dégluwaat déglu ñaareelu yoon fa fële nga xam ne moom moo di ca euh, division des investigations criminelles di dikk bi nga xamee ni jamono ji ñoom ñoo yayoo boobu euh, boobule dossier ñoom ñoo ca ñoom ñoo ca ne di ko càmbar moom Nabou Leye nag ba ñu ko dégloo ñaareelu déglu bi tey ji ci aljuma ji dañ koo bàyyiwaat mu ñibbi këram moo tax information bu ni mel dañ leen di wax ne c'est une information dara du ca dëgg dañu ko déglu bàyyi ko mu ñibbi ca loolee rek lañu leen ci doon euh, wax ci ay leeral ñu fàttali leen ne leen Nabou Leye nag moom bokk na ci ñu bari bari ci sénégalais yi ñoo xam ne dañu ko joxoñ baaraamu tuuma ci mbir mi dañu ko xalaat ci mbir mi ndax dañoo jàpp rek ni Aziz Dabala ak ni ñu ko xamee ak seede yi tukkee ci moom lépp nekkul inconnu moom moo ko moom moo jël ba kanam kii jël ba kanam dañu jàpp ne rek ku ko jege la ku ko xam la te it ku Aziz miin la moo tax ñu jàpp ne daanaka xeex na ak ñoom avant ñu koy faat ca boobule appartement waaye itam euh, na deret ja taseeg yeneen bokk na ci ñu bari jàpp ne Aziz résisté na ci googule faat ñu doon ko faat waaye itam li tax ñu bari jàpp ne rek ni Nabou Leye euh, daf ci euh, laale ñenn ci sénégalais yi di avancé lu ni mel bokk na ci ni nga xam ne noonu la jege woon Aziz Dabala bokk nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mujjee gis euh, suñu toppee li nga xam ne moom mooy ay information bokk na ci ñi mujjee wax ak moom waaye itam bokk na sax ci ñu ko mujjee jox mu lekk ndax mbaxal moomu ngeen di dégg ne Aziz Dabala dañ ko ko toggal mu lekk ko ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye ci ay seede yi ñu bari nee nañu moom moo ko togg yóbbul ko ko ngir mu lekk ci ndax dafa rekk daal di amoon jafe-jafe wér-gi-yaram ba mu dal di koy fekk foofu moom xaritam bi indil ko lekk mu daal di cay lekk ak yeneen ci nag ay xaritam yoo xam ne daanaka ñoom ñoo fa dajee ku ci mel ni Ndeye Yérim ak ki nga xam ne moom moo di euh, euh, Boga Mbaye ñoom ñëpp rek euh, daanaka askanu Sénégal ginnaaw bi ñu dégloo seeni ay kàddu seeni ay seede ci mbir mi ak nañu jàppee ni noonee lañu rek amee ay soupçon ci ñenn ñi loolu moo tax ñoom ñu leen cay tudd ak yeneen ndax li ko waral tam bokk na ci askanu Sénégal ñoom mënuñoo war naa su benn yoon euh, demuk kii nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ndax bu doon yàlla moo ko jël sax ñu ne waaw waaye nag fekk doomu jàmbur ci ab appartement nga daal di koy rey rey gu ñaaw gi li tax ñu bari ci sénégalais yi yàkkamtee xam ana kan moo def jëf ju ni mel ba tax na tamit ñu bari bari di avancé euh, ci ay diwlaak du diw ak nañu enquête nañu nangam nañu sàngam lu ci euh, mel ni euh, nag euh, ki nga xam ne moom mooy xaritam bi ñu gis ci yenn ci interview yi mu sol ab casquette ñu bari tam ci sénégalais yi dañuy daal di seen xel day doxantu ci kooku ndax gis nañu ci internet beeg yeneen ak yeneen ñu ciy becc ay jàmbat waaye tam lum ci mënti doon du ñun ñoo yeyoo enquête ndax yàlla dafa am ñu ko cëralee muy ñu ko jàng ba tax tey ñu jébbaleen yooyu le dossier mu di waa justice te bokk na ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy l'enquêteur yi ba tax na division des investigations criminelles euh, ginnaaw guddik talaata euh, bi nga xamee ni ay jege ñaale Aziz Dabala di rakkam ak xaritam yooyee ma tudd bokk na ci nabulay ba ñu gisee yooyu leen néew ñoom ñoowoo ñi nga xam ne ni ñoom ñooy waa police bu pikin ginnaaw gi ñoom ba ñu dikkee waa police ak waa police scientifique tam ñëw parce que kenn du leen jëkk ci yenn lieu yu mel noonu ndax ñoom ñooy jël euh, toutes les informations euh, qu'il faut waaye tam waa sapeur ñëw jël yooyu leen néew daal di leen yóbbu ci hôpital dalal jàmm ci bu njëkk bi ñu daal leen fay jëlewaat yóbbu leen ci hôpital CTO ngir def ay autopsie euh, xool ñan ñoo faat ñu ni mel ginnaaw gi nag lañu jël jël dossier yooyu yëpp euh, jébbal ko euh, division des investigations criminelles di DIC gi nga xam ne jamono ci enquête bi mu ngi ci ñoom ñu bari nag di wëyal ci ay information yi ma leen wax léegi ne rek ki nga xam ne moom mooy Nabou Leye dañu ko daal di dekk euh, tek garde à vue maanaam euh, jàppub néggandiku ma ni leen loolu ab fausse information la dara amu ca dara du ci dëgg moom Nabou Leye déglu nañ ko ñaari yoon euh, bëccëgu àllarba ginnaaw bi ñu gisee néew yi ci guddi talaata déglu nañu ko ci mbir mi waaye itam dégluwaat nañu ko tey aljuma ji ci mbir mi ngir taataan ay kàddoom ci li nga xam ne moom moo tukkee ci dossier boobu terewul nag dañu ko bàyyiwaat mu ñibbi ci këram moo tax ma leen di wax ni leen garde à vue boobu dara amu ci ci ñu koy avancé waaye itam euh, ñu bari bari bari ci askanu Sénégal seen xel comme ni ma ko waxee léegi dem ci ay jegeñaale Aziz Dabala bokk na ci euh, Bouga Mbaye Ndeye Yérim euh, ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye ndax dañu nekkoon ñu jege lool Aziz Dabala bokk ak moom benn milieu bi ñuy feccee daan feccee bokk ak moom dem ak dikk waaye itam nekkoon ay jegeñaaleem ci ay àndandoo ba tax na nag ñu bari bari tam ci askanu Sénégal rek seen xel la mu jàpp moom mooy euh, ki ko def ku ko jege la tax ñu ci tudd keneen ak keneen mais nag comme ñun dañuy rek euh, taataani information te gisaguñ ci dara lu ñu leer déggaguñ ci dara lu ñu leer ci ku ko def ku ko deful moo tax dañ leen di toppal information yi lépp lu ci tukkee ñu indi laatal leen ko di leen ko baaxee ndaxte E bile dossier ñor na bu baax a baax askanu Sénégal te it li tax mu ñor ñu lool bokk na ci nag insécurité bi nga xam ne ñu ngi koy woy di ko dund fii ci senegal ñu bëggoon mu nekk lu ñu fàtte mu fi mu dañ fi ba jeex tàkk bokk na ci euh, lu soxal askanu Sénégal ci faatu ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ndax insécurité mënta euh, euh, mënoo ko wax ba jéggi li nga xam ne moom la ñuy def di rey doomi aadama yi rawatina ku ñu fekk ci biir këram daal di jël bakkanam waaye itam mbokk internet yi euh, ci bile dossier fas yéene nañ di leen ko toppal lépp lu ci rotee ñu indi leen ko incha allahu rabbi ba lépp lu ci war a leer di ngeen ko xam ci lu ci doon ci sunu liggéey ñun ñi nga xam ne ay taskatu xibaar lañu foofee nag lañuy ñuy jaaree di leen jéggalu euh, bu wax ji rafetee sunu borom la euh, bu amee ñagas-ñagas nag ci sunu matadi la di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci kanam incha allahu rabbi euh, ci yeneen ci ay xibaar jërë ngeen jëf ci safa bi topp beeg faale bi